Um, definitely um, uh, um, mbaɗen juuɓellal um, felante mum tan an coten key uh, uh, lafa pour que min kaccale coten ke sport la karola uh, banko kan uh, ga information o ko uh, it uh, a good news uh, mi yalan komin ko uh, gambenol ɓe uh, ka moye uh, min keta a uh, a ñing uh, information o senle ka yitande uh, the gambian football federation ola ko um, uh, no international match match uh, will actually be hosted by the Gambia because uh, the, the actual reason reason o mi yasabo yewo ke waleng uh, ya feel la komen ko and the uh, stadium o mi yalan ko ko is the only uh, stadium that we have in the country uh, it's not actually uh, up to standard uh, to actually host international matches uh, for that being the case um, till further notice uh, then you know no international matches will actually be played in in the Gambia mm. or will be hosted in the Gambia to make it clear Uh, definitely burgewel ñimu kulati mi yalla ko mi ngane linger ah is a very sad news to the ah. gambia mané ko ah ñoko gisando ñoko digandor metti nañu metti nañu waye mané ci dara li dala ci dara luñ ju mat ñata ati yalla stadium bi di kapata ko ci sun ko te du ni ni ni la his excellence ne nañ ko tej pour ñu mëna renovate mhm. lo de lañ ci am mhm. kon xam ngeen ne ñun war nañoo wat sun bop li example la su fekente ne ñaka stadium war na mëna tax ba ñun duñ bok ci dara té ñun ñu né dañ bëgg football football dafa indi dafa dundal dafa tax kom kom yi rew am of kon bi buñ ko gagné won tay xam nga changement la million yu bari ñoy ñew dewen jot ñu demati mhm. waye bu fekente ne nak ñu ngi bëgg nañ di dem di gañe te ñoom bi dañu war a ñëw ci suñu réew te ñun ñoom bu ñu ñëwee amuñ stade bu ñu leen dalal. xam nga ñu ñu ñu lef ñu aw xam nga dégg ak xam dara ci biir am na solo te du lu ne ndaxte sport dafa am loo xamal xamante moom la laaj ndaxte Gambie dafa am football fédération. am yeneen sport seen fédération bopp. waaye dafa nekk ne comme sport dafa am nañ ci laaj. léeg-léeg ñu sanction dëkk. ne ko sa ground dafa mën a play. day génn dem beneen ground ñu tural ground moo tax ñu ne match bi ñu tural ground lay am léeg-léeg dëkk am xeex te football bi waruñ bu nuñ ko cancel dañoo dem ñu ground noonu la dëkk amee nag problème stadium ñu koy liggéeyaat FIFA ni duñ mun a am fii international yi compétition because of norms yi liñ soxla amuñ ko waaye mun nañ jéggi dem ci beneen dëkk waaye gars yi si biir wax bi tamit xam nga wax ne ah ñu ne Bahama Grass yi nga xamante ne comme xam nga si biir stade bi. xam dañ fa yaaga ba pare. waaw loolu it's not actually up to standard a lot ñu ne stadium boobu noonu dafa yaaga te dëgg la dafa yaaga ba pare dafa ndaw sax nag. definitely xam nga li gars yi xam réeréewul mbir mooy leen. Mhm. daal sotti teewule sotti waaye lu ne dañ koy waxtaanee. Mhm. te li ñu koy waxtaan dafa am ci solo trop bi ko soog day tax nit ñi. gën a focus gën a awee. ndaxte kenn umpalewul ne wax nañ fi ba sonn ne stade bu bees soxla nañ ko. ndax Sénégal ginnaaw su suba. dañuy inauguré stade bu ees te bëri na fa stade yu bëri ñu am. dëgg la la ñoo ñu gën a ñoo ñu ëpp. réew mu réew mu rëy la daanaka. parce que ñun ëpp xej nañ ci ñun. ñun xej nañ ci ñoom. waaye dañuy gis ne ñun am nañ move ñu doy def. am na move yoo xam ne nguur geen ko def fédération di ko def. su move yooyu sottee xëy na beneen stade dina am te bii nañ ko gën a liggéeyaat parce que nag boo amul yaay da ngay nampi maam indépendance doom lañ fi am nañ ko rénover ba mu correct def ci noom si nga xamante moom lañ soxla international compétition ñu ngi ko faa def ndaxte dëgg-dëgg fa yàlla stade bu baax la stade bu baax la. stade bu baax la waaye stade bu yàgg la tamit am na garanti sax boo ko gisee am na garanti. ndax doo di Linguère. stade mhm. mhm. mhm. def dëkk fa teg ko si kaw nit ñi de. dafa yàgg. non yàgg na xam nga lu yàgg la. waaye. soo baax na bii ngay wax buur li may wax toujours. ñun his excellence daf ñuy seetaan. waaw waaw buur gis nga baro. du lépp lay dégg de. gars yi dañuy naax naax. pour ñu ne mu ngi pour ñu ne. pour baro ne ñoom ñu ngi liggéey. non waaye xam nga ñun nag dañ war di jaar ci digg bi. waaw waaw ngir moom mu xam ne lii lii la. to say it fi toog baax na uh-huh. baaxut. suñ ko mënee daanee sampalaat ñu ko mm-hmm. mu ne déggoo séeréer nee na o tigoo tig o geekangaan mbir o geekin o kenn ma soppi. dégguñ loolu ñun dégguñ loolu faram fa ñu ne mbir yow ngay séeréer bu dee mbir moo gis mbir moo gis. mu ne mbir moo gis. man maa dégg loolu wax ko. xay. dama mun a tooñ. buur nag da maa neex sekk. man nag sekk da maa neex. waaw man séeréer bu dee nga séeréer bu géwél xoolal man doo ma waaye. waaw léegi naa séeréer di. waaw wax ko waaw dañu ko nit au gekk ngaan man maa ko waxoon nga balaa ñoo commencé lii. nit ku ne. <laughs> aduna mun ñu ne aduna. lépp loo xam ne daf la waral a. wala loo xam ne da nga ko dencal da ko dencal boromam. lépp li la war boo ko war a def nit ki ku ne dafa am loo xamante ne fa ngay em